le juge euh, par suspicion que ni dafa euh, jege euh, benn euh, nataangoo wu Ousmane Ousmane Sonko logiquement est-ce que juge boobu ñu récuser warul woon réguler. bon en tout cas ce qui est sûr mooy juge bi am na ay prérogatives yu ko loi bi may. Mhm. prérogatives yooyu usé na ko pour kii. Mhm. léegi nag li ci desoon mooy est-ce que waroon nañ mën arrêter procédure ou pas. Mhm. c'est ça la grande question maintenant par rapport aussi. au à l'agent judiciaire de l'État mm bon wane ne na moom parewul pour pour ñu annuler mhm. kii mm -hmm. Ousmane Sonko la radiation de Ousmane parce que xeex na ko ba tey au niveau du prétoire doy ko mu génn ko ci mbedd mi génne na communiqué boo xamante ne parce qu'il a fait un communiqué mhm. buy charger le le président du tribunal ba même li li l'UMS mi ngi koy mi ngi koy kii nu mu ne mi ngi koy recadrer en lui disant que le débat juridique se fait au prétoire mhm. et non par voie de presse donc ça veut dire que kooku pareegul donc qu'est-ce qui va arriver ils vont l'État va faire un recours au niveau de la Cour suprême pour ñu kase décision bi ñu donc donc ça veut dire que l' état pas encore prêt à lâcher du lest mhm. dans cette affaire la et la question que je me pose mooy lan cour suprême bi tere woon ki ki ki ne woon Ousmane Sonko warta am parrainage mu confirmer ko mhm. est ce que cette cour suprême la dina bàyyi lii annulation bi jàll donc ça c' la c' la grande question mais ce qui daal c'est une bataille boo xam ne Ousmane Sonko gagné na ko mais il n'a pas encore gagné la guerre et gis naa kii sax am pressentiment boobu nu mu tuddati Cheikh Tidiane Dièye parce qu'il dit restons vigilants et déterminés donc ça veut dire que mbir yi des na ba léegi Cour suprême bu kenn def confusion si ñaari jugement yi yu mu yi mu war a am maanaam bi njëkk bi ko Ousmane Sonko soumettroon il faut être très il faut il faut gars yi xam lan mooy les procédures juridiques waaw waa xam na lañ ko mhm. DGE moo jël décision ne ko du mu la jox mhm. ñu ne yow cour suprême est-ce que DGE amoon na si droit wala amu si droit mhm. mu ne leen à partir du moment où il était radié ñoom dañu jàpp ni DGE waru ko jox ñoom loolu la ñu liir dafa ñu le fond du procès mais démb procès bi nag démb lañ def fond bi nit ñi ñëw toog plaider. je yaa ngi dégg bañ plaider ba ñu plaider juge bi même bu condamné woon maanaam bu ne woon radiation bi c'est normal man damay taxaw fii tey ne ko d'accord ma si dégg nga ju baax kon loolu parce que xam nga lu tax nee naa leen la loi et écrite en français mm-hmm. en très bon français et en français très simple ku nekk mun na ko lire dégg nga ju baax contumace dafa am si ay conditions yu mu am am ay conditions yoo xam mooy dindi contimence yan mooy dindi contumace lan mooy dindi contumace mooy su fekkee ni contumace d'abord mooy xam nga lan en wolof très simple. Mhm. yow gisuñu la. Mhm. da daw. procès ba du loolu kese yeggali lépp. ma ne mooy contumace non du loolu kese. ma ne du loolu kese. non dama ne devenir en ah. de. Ah, non da eh, eh, non il faut que ça soit clair dama ne dama par essence introuvable. waaw mooy koo xam ne gisuñu ko. Eh, mais yow hmm? munoo ne kii mu dans un commissariat. kii mu ngi dans encerclé par toutes les forces de la république mhm. nga xam il suffit d'appeler le commandant mhm. ne ko dugal jël ko mu dugg jël ko andi ko nga naan kooku gisuma ko yaa ngi dégg looloy un de deux ñu ne la même boo nekkee conti yow yow yow yow yow en situation de contimence mhm. ah benn jour rek nii rek si benn raafle nii parce que raafle lan moo tax ñuy wax vérification d'identité tu crois que da ngay wane sa carte d'identité da ngay wane sa carte d'identité ñu yóbbu la vérification d'identité du loolu vérification d'identité mooy ñu xool est-ce que tu est-ce que lii est-ce que lii ñu ne la même bu nekkoon vérification d'identité dafa am bu ñu demee ba gis Ousmane Sonko jàpp nañ ko nii si kii bi si si si si kii bi ne ko yow yow ndeke dañ la contumace woon jàppoon nañ la fii ba tëj la contumace bi tëb na loolu mooy la vérité. waaw alors kenn mënu koo changer. d'accord mais. Oh, non man fa laa yegg. bu ñu revenir un peu. Euh, euh, euh, <laughs> man kañ sama. revenons à aujourd'hui <laughs> débat bi def nañ ko une dizaine de fois donc revenons à aujourd'hui avec ce procès là. mais wax du loolu conséquence. li mu wax du loolu kese mais waxal. alors démb après après procès bi les la ñuy wax mooy conséquence direct bi mooy lundi par exemple bu Ayib Daffé demee DG dafa war a jot ses fiches de parrainage. Euh, Aliou tu tu tu tu tu euh, ci mbiru mbiru euh, alors non ñun ñu <laughs> <laughs> on avance bàyyi ma ko ba beneen <laughs> on avance ak ak décision bi nga xamante ni moom la juge si Faye daal di daal di jël mhm. li njëkk en tout cas conséquence bi njëkk moom mooy selon les avocats de la défense bu Ayib Daffé yi nga xam ne moom mooy mandataire Ousmane Sonko demee DG dañ ko war a jox le les fiches de parrainage malgré le recours bi nga xamante ni avocats yi état yi ñu ngi koy évoqué. man man man man man man man logique. pour logique man dama gëm ni bu la administration dindee ci liste électorale yi maanaam yow waruñu la jox man pour man waruñu la jox fiche de pa muy Ousmane Sonko. mais juge nee na ñu delloosi ko. non de waaw dama wax moo tax du ma xam nga man léegi sax gis nga sànq li ma wax à l'entame de l'émission ne juge bu décidé. dañ ko war a appliquer. parce que ñoom loolu la moo leen fi tege. parce que ñoom ñoo yor la décision suprême. ñun mun nañ joxe suñu xalaat Doudou Coulibaly et les autres mhm. mais en un moment donné juge bi mooy décidé waaye man avant muy décider man sama xalaatoon mooy man logique mooy bu fekkee ni bokkoo ci list électorale yi mhm. munoo nekk candidat L29 mhm. code électoral te comme munoo nekk candidat yow waruñu la jox par essence fiche parrainage parce que fiche parenage pour ki naar a nekk candidat la à l'élection présidentielle te comme da nga war a ne day doon non waaw. mais mais si procé procédure bi ni mu demee L41 bi. xam nga dafay dëggal xam nga lan moo war xam nga man pour man fan la fan laa doon xalaatee le contraire. Mhm. mooy à un moment donné bi Ousmane Sonko récupéré décision wu décision wu euh, ministère de l' intérieur bi. Mhm. ne da kay génnee par voie d'huissier bu ko téye woon amoon na possibilité moom sous cinq jours juróomi fan pour def un recours boo xam ne day suspendre. décision administration bi. le souci mooy diggante notification bi ak bi mu koy jot. il s'est passé beaucoup de temps le 29 la ko jot. mais ak nu mu mënti demee. ak nu mu demee moom moment bi mu koy jot. moment bi mu koy jot mënoon la sax réclamer ne bi sàngam lañu ma ko indil parce que euh, huissier bi kii nag waaye jour boobu ñoom ils ont refusé de récupérer la notification. d'abord par le protocole de la maison. ensuite par l'avocat de Ousmane Sonko que l'huissier a appelé. pour ne ko dem naa ci këram. jotuma ko ñu ne ma mi ngi hôpital principal ma dem hôpital principal logique ñii administration pénitentiaire yi ñoom jotuñu benn autorisation wu greffe wu Sébikotane prison wu Sébikotane pour mu récupérer pour euh, pour ngeen gis Ousmane Sonko alors que waa ji dafa ñëwoon huissier bi pour indil ko notification boobu nga xam ne mois boobu bu ko récupérer délai bi pour man foofu la war a logique pour logique foofu la war a commencer délai de cinq jours yi nga xam ne bu defee recours rek automatiquement la décision dafay avorter immédiatement te bu boobaa bu yónnee dafe pour mu récupérer ko. Euh, les fiches euh, yi kon coow gi yëpp. je vous assure que du am parce que du am parce que nee naa la recours boobu muy def immédiatement dafay faagaagal décision bi nga xam ne moom lay jël de manière suspensive mais loolu comme amul logique pour logique amul donc on considère que ni décision boobu mu ngi ak administratif la ngi dem ba tey mi ngi doxal. te comme te comme mi ngi doxal rek pour terminer comme mi ngi doxal pour terminer forcément ki nga xam ne moom mooy organiser élection yi parce que dañ ko ko jagleel parce que son patron moo ko jagleel muy ministre de l' kooku bu nit ki ñëwee euh, ñëpp ñëw dañuy xool. mais alors kii organiser du kii tànn. non waxuma loolu non dama ne non waxuñu tànn non waxuñu tànn non du waxuñu tànn foofu conséquence non pour ñu jox la kayit bi foofu dafa am euh, jiixi jaaxa dafa am jiixi jaaxa Assane parce que munoo ne dama munoo yow war a bokk élection yow bokkoo élection ñu ne lay yow nekkoo ci liste bi ñëpp xam nañ ko buñ ko xamul peut-être garaawul mais bu ko Assane yow boo doon nekk eh, eh, eh, élection ñu dem wër la ba jàpp la fekk danga am problème après on se rend ni yow jox nañ la fiche bi est-ce que fiche bi dañ la bàyyil nga continuer ko déglu ma rek dañ lay bàyyil nga continuer téye ko wala dañ koy annuler est-ce ma wax li ma wax. d'accord euh, euh, euh, Mademba on revient un peu sur ce qui s'est passé deux semaines. non li ma wax nii alors le débat le débat ne. laaj DGE boo fa ñëwee. lundi boo man Doudou Coulibaly su ma ñëwee taxaw damay laaj Aliou Sow. lan lañ lay laaj pour ñu jox la fiche de parrainage est-ce que xam na ko. no mais attends problème nekkul foofu. xam nga sa identité ngay laaj. non non non non xam non non ma ngay xaw xam nga li am mooy. li am solo non mooy lan mooy lan bi mooy il faut ñu souligner sénégalais yi nii administration bi nee na Ousmane à un moo décidé mu ne. bu fekkee loolu mu décidé nag amu ci droit wax ma ko fii ni amu ci droit man pour man am na ci droit léegi bu ko décidé bu ko décidé aujourd'hui Aliou le juge euh, de le juge euh, Sabassy Faye amuñ ci droit waaw nee na erreur dañuy faute mais c'est normal mais ñoom am nañu prérogative jël une décision jël une décision en a minute non li ma bëgg leeral mooy administration du foowukaay mhm. Ah, parce que ah, ñoom dañuy fo. DG yow yaa wax dëgg quoi waaw déglu nañ juum mën nañ juum. non juge bi rek ñu fier mais leen suufal. mënoo leen non déedéet leen administration bi à ce point là naan dañuy fo ñooñu ce sont des gens. yaa ngi dégg mën nañu def ay fautes. Mhm. mën nañu def ay fautes ñu corriger leen comme ce qui s'est passé à Ziguinchor mais mënuñu ne dañuy fo mënoo leen wàññi à ce point là man gëwuma loolu parce que ce des gens quand qui sont expérimentés maintenant ci mun nga juum wala sax à des injonctions politiques non ki oui mais toujours mais xanaa kon léegi sama si bi da non léegi sama si fay sama si fay ba ban injonction la répondre on a bon exception là quoi. Ah, quand ah, va bien de l'autre côté tout va bien. c'est ah, c'est l'autre côté ay fo la arrêtez un peu. parlons de euh, la décision qu'il a prise là moom da doon fo wala fo. moom va bien quoi moom c'est le meilleur. alors Aliou. alors il est digne. parce qu'il eh, est eh, de l'autre eh, côté quoi. C'est le débat que je voulais poser. C'est le débat que je voulais. Non, les zones ne sont pas dignes. S'il vous plaît, vous là, s'il vous plaît. Sauf Samassi. Tous les autres ne sont pas dignes sauf Samassi. Parce que Samassi a pris une décision qui alors euh, c'est le débat que je voulais poser ak Mademba Ramata Dia dañoo gis semaine yi ñu génn des positions yu mel noonu si avant moom procureur bi ci li xew cour suprême ak plaidoirie yi nga xamante ne moom moom la def mu am des propos yoo xamante ne les les avocats de la défense ñu ngi koy wax mu ñaan la justice a retrouvé son honneur mooy kàddu yi nga xamante ne moom la ñu wax est-ce qu'en ce moment au Sénégal bu ñu demee ba à ce niveau là de de de la de la tooñuñu suñu bopp ñun ñu jàpp ni euh, euh, tant que waxoo lu ma arrangé nekkoo nga bon juge. en tout cas am na un fait mooy saa yoo gisee benn ñu def benn décision de justice. Mhm. ñi ma arrangé dina ne juge boobu il est bon. ñi ma arrangé wul dina ne il est bon mais pour man ce qui est important mooy que la justice soit rendue au nom du peuple. parce que ñooñ di jël décision yi. Mhm. chacun de nous a en lui-même un tribunal qui est sa conscience sa conscience boobu moo la war a guider par rapport à ses décisions par rapport lii dee wane ne li xaw dem ba nit ñu bëri di di di ko apprécier positivement day wane ne on ne peut pas dire on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain de boo jël nit ñëpp mettre leen dans le même moule Ça n'existe nulle part. Il n'existe aucune société, que ce soit judiciaire ou politique, où le, toutes les composantes ont le même niveau de développement intellectuel, économique, sociale et moral. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a des justes qui, qui, qui, qui sont toujours debout. Maintenant, par rapport à ça, ma li ma mës a gëm mooy indépendance de la justice loolu man gëm ma ko xam nga la laa gëm mhm. il y a des juges indépendants il n'y a pas une justice indépendante mais il y a des juges indépendants léegi loolu da koy wone maintenant par rapport à autre chose parce que boo gisee réaction di de l'agent judiciaire moom wane na ne d'accord ci décision bi xaram na juge beeg yooyu yëpp donc ça veut dire que moom tamit il est dans une posture de défensive mhm. te mm -hmm. il est prêt à continuer le combat par rapport à la radiation de Ousmane Sonko